waaw jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di nuyu tey nag euh, ñu ngi ci région de Fatick ci département bu Fatick dëkk bi ñu nekk nag mooy Jifeer nekk ci commune bu Palmarin dañu ñëwoon nag euh, ngir xam dëkk bi nga xam ni mi ngi sës ci géej gi te dëkk la boo xam ni xëy na géej gi dafay avancer di gën a avancer rek waaye li ñu yëkkati tey mooy ñu laajte dëkk bi nga xam ne mooy Jifeer tur bi fan la cosaanoo dañuy laaj ñu ngi xam ne ñoom ñoo fi dëkk rek ànd ak sama caméraman Pape Samba ñu dem ñu laaj waa dëkk bi ndax xam nañ seen dëkk lan mooy cosaan bi. ayca ñu dem. salaamaaleykum grand. maaleykum salaam. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi jàmm baax la. tur bi Amadou. Jifeer nga dëkk. waaw man de dëkkuma hmm. yaa ngi Jifeer xam nga turu Jifeer li muy firi. non xamoo ko. xamoo ko mais nga fi. non yàgg nga ma fi de. grand ça yaa ngi daw de <laughs> ça va noo def. maa ngi yaa si jàmm sant bi naka la. Papa Ciss. Ciss Jifeer lañ la fekk ñu bëggoon xam ndax xam nga tur Jifeer lu muy firi. non xaw ma ko ko ok xaaral ma laaj sama gars yi taxaw fii nii. salaamaaleykum grand. maaleykum salaam ça va grand. yaa si jàmm. sant yàlla bu baax. tur bi naka la. Pape. Jifeer nga dëkk. Jifeer dama dama job fi rek. Uh-huh. Mhm. lu muy firi. Jifeer euh, exactement dégg ko noonu rek laa ci am. Mhm. mais xaw ma Jifeer bi quoi. xaar ma laaj ki nga àndal sang bi na nga def. sant bu baax kay xam. yaa ngi si jaamu Jifeer tur bi la ñuy laaj ndax xam nga lu muy firi. Jifeer. Mhm. ndax xam naa amaguma ci renseignement yu leer. waaw nga Jifeer. non non. pendant deux mois rek. jërëjëf jërëjëf kon ñu doxante ba léegi ànd ak sama caméraman bi damay fekk sama gars ñu ngi ci liggéey bi. xam naa damay yàq waar wi tuuti <laughs> ah salaam lépp jàmm. dañu bëggoon xam turu Jifeer ndax xam nga li muy firi. Jifeer. Mhm. non xaw ma firi liggéey rek laa xam kañ. <laughs> damay gis ñii naan Jifeer ñii naan Jifeer xëy na dinañ ci gën a xam dara. salaamaaleykum. grand noo def. waaw ah, maa ngi fi. xanaa yaa jiit atelier bi. atelier bi kii moo ko kii moo ko jiite. lan ngeen defar ci atelier bi. atelier bi uh-huh. jifeer lañ doon laaj turu jifeer fu mu jugee. man dégg laa ñu uh-huh. am. ok. grand ça va. ça va bien. yaa ngi si jàmm alhamdulilah. borom atelier bi. waaw si si maa nekk. naka liggéey bi ñoo ngi sant bu baax a baax. ça va jifeer lañ doon laaj tur bi ndax xam ngeen lu muy firi. Euh, turu jifeer quoi. Uh-huh. man nag dégg-dégg rek laa ci am comme noonu quoi comme ni ko gars yi di waxee noonu rek waa <laughs> daa mel ni jifeer ñu bëri ñu fi liggéey dëkkuñu fi waaw si si ñun ñëpp dëkkuñu fi ñun boo xoolee ñun ñu ne ci atelier yëpp ay waa Joal lañ fi ñëw pour daan ci doole nii rek mooy loolu mhm. comme waxee jifeer ah dëkk la boo xam ne ñu bëri ñu fi nekk di liggéey moo xam ci wàllu géej gi la moo xam ci wàllu liggéey yi ñuy gis ñu ci bëri euh, dëkkuñu fi mais dañuy dem rek ci chef de village bi moom mu leeral ñu turu jifeer fan la cosaanoo ay ca ñu dem ñu laaji ko. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah na def seen. sant alhamdulilah ñu si jàmm. ñu ngi si eh, bi naka la. Cheikh bu Diamé. waaye mhm. chef de village bu Jifeer. chef de village bu Jifeer. Mhm. ñu ngi la fekk de waaye ci daa mel ni Jifeer moom bërëbu napp la. waaw yéen a ma fekk fii bërëb bi nga xamante ne fii la point de débarquement bi fii la gaal yi di débarquer. ci mhm. côté de pêche bi. ñu bëggoon a xam tey turu Jifeer. Euh, fan la cosaano waa turu Jifeer mu ngi cosaanoo ci benn usine bu fi nekkoon bi ñuy wax usine yor mhm. usine la boo xamante ne tey jii si suñuy maam wala suñuy bàyyi déggoon nañ ñu ne usine boobu fer la daan liggéey mhm. mais dem na ba mujj jamono ñun luñ fekkee jën la daan liggéey mu jantal gi mhm. usine boobu moom moo créé Jifeer turu Jifeer ci usine boobu la jóge usine yor moom moo mujj nekk moom lañ jox turu dëkk bi Jifeer. waaw usine yoor boobu noonu. moom moo créer ji fer moom lañ jox turu dëkk bi. lu waral loolu xanaa usine bi def fi njëkk wala. waaw usine bi moo fi njëkk mhm. parce que usine bi moo fi indi nit ñi nit ñi daan liggéey ci usine bi yaakaar naa moom moo waral dëkk bi sanc mhm. jamono yi fii nekk nag boobu àll woon mais ñi daan liggéey ci usine bi ñoo ñëwaan doon sanc dëkk bi. usine bi moom ana mu léegi. usine bi boo koy xool léegi mu ngi ci biir ndox mi mhm. parce que géej gi lekk na ko ay jamono yi yàgg daal. kon daal léegi bërëb boobu yëpp ak àll bi nga doon wax yëpp euh, géej gi lekk na leen. waaw parce que boo xoolee am na benn île bu ñu jàkkaarlool fii bu ñu naan île de Sangomar île boobu dafa taxaloo woon ak jifeer mais 1986 la fa mosoon menacé ba bënn ko bënn bu ndaw depuis boobu ba tey nag bon géej gi muy na di avancer di lekk ba boo xoolee diggante boobu léegi mën na 10 kilomètres wala 9 kilomètres diggante boobu ci la usine bi nekkoon en même temps amoon na hôtel bu fa nekk. amoon na forêt bu fa nekk en temps li si soo noonu yëpp àll la te boo xoolee loolu yëpp fu mu toll mi ngi ci biir ndox loolu lépp mi ngi ci biir ndox mi kon mu nekk loo xam ni jar na euh, tiit waaye tamit xëy na ñuy ñaan rek ñu jàppale waa Jifeer ba leneen lu mel ni xëy na du fi amati kon ñu koy jaajëfal ci usine euh, yoor bi nga xam ne nee na tur boobu moom ma jee dox euh, Jifeer ba ñuy tuddee ko léegi Jifeer ñu koy jaajëfal yéen tamit di leen jaajëfal di leen jox rendez ba beneen et ci jërë ngeen jëf. di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom ab Ablaye Diop ci euh, li mu ñu indil wàjji feer di leen nuyu bu baax a baax ne leen dinañ fa ñëw euh, wut si jën wut si keccax vraiment li ñu gis kon neex nañu loolu danañ fa rekk daal di yegg si ñu ñëw ak